salaamaaleykum El Malick na def njaay njaay naka itte yi ba ci jàmm naka coono ana Sonko yaa ngi koy dégg ma moom nu mu def ba mi ci jàmm mi ngi lekk aslëf a Sonko mi ngi nekk ci jàmm waay alhamdulilah wuy ma El Malick gis nga gone yi Pastef yi niñ def ko la ca eh, ma ca Joal gis nga ko aman ba sedd sama xol wala asim ni gone yi def sëfi sedd sama xol sëfi yéeg rek di wax waxi Macky Sall ya yooxoo ko di way eh, Sonko ba mu far gedd micro ba ma loolu daal laa bëggoon ñu waxtaan ci wala asim lol la bëggoon ñu waxtaan ci almalik waaye loolu moom mun ñu koo def stratégie bu beesam ah mun ñu ko jël comme stratégie fépp fu waay wootee ci ay nit dafa dajaloo rek ñu ñëw fa ruube maanaam tuddee ko opération ruube <laughs> walla asim opération ruube lañ ko war a tuddee fii bépp waykat ku fi tëgg concert ñu bàyyi la ba nga commencé way ñu commencé way suñ mbër mi ñun Sonko ba kenn du dégg la wax ñu ne Sonko boo waxee leneen lu du Sonko ñu yooxoo la ba sa concert yàq mënul nekk walla s'il vous aussi ñu def ba ba campagne commencé fépp fu waay woote jugu ci la ba nga yaakaar ne am nga mbooloo boo jëlee micro bi war a wax ñu wax ñun tamit Sonko ñu way Sonko yooxoo la <laughs> walla asim buñ ko ne réew mii bu Sonko amul jàmm kenn du am jàmm s'il vous plaît xalaat loolu daal laa ne woon ko wax rek ngeen jim xalaat ba xam stratégie buñ mën wala waaw ci xam nga wax ma dégg nga El Malick waaw góor <laughs> nuyu ma